mbokk yi seen jotaay kàggu mag ñi mel ni rek euh, dootuñu leen présenté tey fi ñu dellu si rek euh, di boroom xam-xam gu mag macha allah itam di yëngu ci wàllum euh, pajum cosaan waaye itam ñu gën koo ràññee ci wàllum lasraar di sëriñ Babacar Diop daanaka mbokk yi boo ñëwee ci diwaanu rond point Case ba daanaka yaa ngi ci diwaanam duñ ci sori nag dañ koy daal di jébbal kàddu gi rek mu daal di nuyu mbokku téléspectateurs yi nga xam sëriñ Babacar Diop salaamaaleykum. aouzu billaahi samiil allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabil ummi wala alfa wa salim rabbi sali sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli di leen fay yéen waa Jamm ji info mhm. di leen nuyu yow Muntaxa bu baax a baax di leen dara dina ahlan wa sahlan euh, jërëjëf sëriñ kër Diop ci néew yu sell yu tedd yi lay tabarkàlla mu mel ni rek ni euh, toog ab diir waxoo tam euh, dañ naan loolu daanaka duñ ko nangu sax ñun sax saa su ne ñu lay sonal ndax askan bu ñu demee ba am lu ñu soxla war la cee laaj faw ñu toog ak yow mu mel nag dañuy dugg ci benn wax boo xamante ni rek tàmbali na di jëpp ci li nga xamante ni mooy ki fi nekkoon Miss Sénégal 2020 mel ni am na ndog-ndog ginnaaw si nga xamante ni nekk na Miss ndog ga ko dal mu dem ba nga xamante tax dem na ba jël ci lor ba am ci doom waaye tam mbir mi nekk loo xamante ànd ci ay parents ak ñi nga xamante ni organisé woon nañ mbir mi mel ni am na ay kàddu yoo xam ni euh, dafa tàmbali euh, jut te xale bi tam xamul euh, lii nga xamante ne lor bi fan la ko dalee xamu ko ba léegi-léegi ba daanaka daal mbir mi doy na ba ngi xam ñu ngi ci tudd mbirum daanaka mbirum sàkku dañ koo sàkku loolu la ciy wax sëriñ Babacar Diop waaw li may njëkk surtout kii indi ci wax surtout responsabilité ci côté xale bu jigéen ba nopp Euh, ndax jigéen moom yaayam ak baayam ñoo ko war a sàmm li jiitu mooy yar ndax kulum raayin wa kulum masul nga xam raayat yi la yonent bi saa san wax mhm. nga sàmm li sàmm ëllëg dina la laaj mhm. jigéen su amee liberté rek lu ne mën na koo dal lu mel ni miss lu toll ni Sénégal ni mu toll yëpp ci ay jigéen dàqoo fi ëppoo fi taar tëb jël volontaire ne yow yaay wane sa taar wane ne yaa dàq ci senegal ci loolu rek euh, problème la lu ne mën na laa dal ndax xëy na moom dafa amul maturité bu tax amul ay ay ay précaution ba ko daal bañ koo daal mais ñu bëree bëri même cas bi. Mhm. subir nañ ko mais ëmbuñu. Mhm. même cas bi nañ ko mais ambuñu bu dee tam ci côté ñi ko organisé. ñoom itam responsabilité bi nga xamante ne moom lañ am mooy euh, su fekkee sélectionné nañ ay xale. yoo xam ne age euh, bi treize ans euh, âge bi dix huit ans vingt deux ans wala âge yu toll noonu. Mhm. ñooñu lu lu seen sob maanaam luñ ñu sob sob sob du tee seen xel du àggul ci ñu am maturité boo jëlee ñu mel noonu faw nga euh, jàppal leen mais doo leen doo leen bëgg a jëfandikoo mm-hmm. ci di leen chantage wala di leen def looloo xam ne euh, ëllëg si biir yu mel ni luy jur lu mel ni li am nii ndax fi ne ni problème bi mooy enquête bi moo mën a leeral moom ëmb fan la suti fan la jóge waaw enquête rek moo ko mën a leeral waaye daal waajur yi moom kon dame ci ñàkk yar seen doom ak ñàkk ko encadré ba li am ni am Euh, jërëjëf sëñ Babacar Diop ci buntu boobu ndax euh, ni moo ko waxee saa su ne euh, léeg-léeg loo xamante ni nag wàcc na wala tam ci wàllu jamono war nañ ci waxtaan ci mbéppam actualité kon loolu dañ ci di déglu sa kàddu tabarkal mu mel ni dañuy ñëw léegi nag ci wàll wi nga xamante ni sëñ Babacar mu mel ni Euh, dama koy gémme ci yow ñu bari ni ma ko waxee rek dañoo jëm ba jëlee rek féetale la lasraar bi euh, waaye wala faj bi sax daanaka waaye lasraar bi la nga toogaale ci lu lu am solo infection ñu ñëw ci wàllu mbirum infection ñu faral di ko dégg di wax ni ki diggante jigéen góor day am infection dañ koy faral di wax loolu xaw nañu jaaxal ci ñenn ñi ñu ne jigéen day am infection lan mooy infection d'abord balaa ñuy sori ci loolu infection moom day dal jigéen day dal góor hmm. waaye jigéen ñi moom bu leen dalee saas dana xam ne dal na wala seen kanam di xasan wala bu ñuy saw muy metti hmm. wala bu ñuy sëy du ñu am bànneex walla sax mën na de mën na tax duñu ñu ëmb di yàq seen ay ëmb kon jigéen ñi moom lu gën a bëri ñoom ñooy faju infection hmm, hmm. fekk ne góor ñu bëree bëree bëri am nañ ko di ko weyaale laata ñu koy mën a xam rek day fekk dem na bu commencé leen di gaañ d'accord yàgg na si ñoom ba commencé di neewi seen kanam seen awra wala di diisal seen naq wala di dem ba bu ñu sayoo mu génn lu mu mu am couleur boo xam ne day utee couleur bi mu war a am mhm. ak di euh, faral tam leen def yaram buy tàng bu ëpp ñu door a xam ne ñoom nii am na lu leen dal ñu door a jóg dem hôpital mhm. bu ko defee ñu door a génn ne leen daal infection la bëri na ay ay ay symptômes yoo xam ne bu ko góor dee gis boppam rek bëri na infection di ko waral. di waaw lu mel ni ki góor ngay saw. Mhm. saw bi di tàng jër. loolu infection dina koy waral. Mhm. wala say safa saw di jegeyantoo. waaw soo sawee léegi balaa ngaa toog lu mat une heure temps nga safaat saw. est-ce yi dañuy xalaat ni foofu wàllu jabet la comme ñu bari dañ naan jabet day def noonu. waaw mais bokkul. Mhm. maanaam mandarga dafa bokkul. dafa bokkul. si boobu bokkul. en bu dee kii jabet dal saw bi dafay weex. day weex. waaw. Hmm. dafay jegeyantoo mais dafay weex. mais bu dee ci infection saw bi la plupart day am couleur. Hmm. couleur boo xam ne mën na dem ba mel lu xaw a marron wala lu xaw a jaune. Hmm, am na ñoo xam ne seen bët dem ba àgg ci deretan. d'accord mais bu door a commencé nag du amagul couleur. du amagul couleur mais dinay waral nit ki yaramam di tàng. parfois mu def ko ay euh, ndiglu metti wala biir bu metti d'accord naq bu diis. góor yu bëri sax dem na ba fi leen loolu ñuy wax euh, impuissance sexuelle euh, góor ñu bëri dem na ba yàq seen mànn yu mm-hmm. te xamuñu ne infection moo leen dal moo leen dal euh, sëñ Babacar boo amee cas bu mel noonu tey traitement bi fii tey ci cabinet bi naka nga fër jëflante ak moom par rapport nag nit ki bu fekkee yéex na koo xam ba dem ci benn phase de terme boo xam ne débordé na maanaam xaw a chronique ci moom est-ce que loolu traitement am dina facile. waaw boo xoolee. Euh, da ngay gis ñoo xam ne suñu amee infection ñëw fi day fekk jaar nañ fu bëree bëri ci wàllu hôpital. Mhm. suñu demee ba ba mu chronique buñ fi ñëwee dañ leen di jox da gis buñ ko jëlee diir bu gàtt rek la plupart sax si ñetti fan da gis mu daal di set dañ. tawarkal la. bu ko defee nag léegi dañuy toppaat di jël garab yi rek ba mu set carrément. d'accord macha allah waaw mhm. bu dee góor la moo xam jigéen la. waaw ñaar wet yëpp da ciy am. da ciy am directement xamante tamit ñu bëri dañ may poser question boobu euh, di ma ci laaj lu bëri bëri muy wàllu masturbation maanaam góor bi nga xamante ni day fooye boppam euh, di fooye boppam bay yëg boppam euh, ci biir néegu sëy te maanaam du ci cooberam sëñ Babacar ñu bëri dañuy wax ni ñeen ñi am na ñoo xamante xëy dañoo dem ba tàmm te dañuy wax ni tàmm laago la am na ñoo xam dañu naan parfois dafa am lu leen koy def loolu maanaam ci xeetu rab est na. waaw am na ñoo xam ne moom. àndandoo bon moo leen ci yóbbu nga xam nga nekk benn xale boo xam ne mm-hmm. euh, ndax ñi ma koy expliqué ñu bari dañ dañuy naan fi ko njëkk a xamee seen benn cousin yi ñëw vacances seen kër waaw ànd ñoom sangu walla ñu dem tëdd ci néeg bi mu def ko ne la lii boo ko defee dafa neex nga def ko daal di koy tàmm di ko def nga xam ne kooku day dem moom ñibbi yow ngay continuer di ko def mu chronique ci yow. xam a kon loolu influence la xale àndoo bon la. Mm-hmm, mm-hmm. loolu benn la ci kaa yi. beneen bi euh, nit ki parfois mu tukki nekk àll. Mm-hmm. fekk xamoon na jigéen jabaram sori ko mu waxtaan ak jabaram ba yëg boppam. daal di masturbé kaa boobu da koy gis. da nga beneen kaa bi nag. moom rab la. d'accord. bu defee dana ko xiir chaque fois ci mën na rab mën na xiir nit ki sax si naan sàngara. wala sàcc alal jàmbur te du ko tey mhm. wala mën a xiir si nit ki ba mu dem ba dootul nangoo jàng bu dee xale la d'accord day jaxase boppam ba bu jubee école rek day mel ko naan dëppal mhm. dama bu dootul bëgg sax génn génn génn génn mu jox ko ay jikko yu bon yoo xam ne day masturbé woog mhm. yu mel noonu bu dee jigéen tamit mu dugg bu dee jigéen mu dugg ci naka sudul noonu di dee jigéen sax mu ba waaw muy jaay boppam jigéen tam day masturbé am na jigéen ñoo xam ne sax ñoom dañuy dem ba jël lu mel ni comme carotte wala objet boo xam ne ni xaj na seen kanam di ko jël di ko fowe hmm. di ko def seen kanam wala jël seen baaraam di ko teg seen culturus di ko fowe ba daanu hmm. lu mu amee ci góor noonu la amee ci jigéen d'accord d' accord euh, sëñ Babacar tey mu mel nii euh, tey mbir mu masturbation bi nga xamante muy foyee sa bopp tey fan la la fan la mën a yóbbu góor ci benn jamono Euh, bu demee fekkee dem na ba chronique ci moom fan la ko jëmee ëllëg te daanaka mën nañ ne làqagul wala amaana sax mu ngi làq na soxna waaye dem na benn jamono boo xamante ni kàttanam dafa néew. waaw fi mu koy mën a mën a jëmee mooy dafay dem ba mujj dootul nekk góor 100 pour cent dafay am awra bu nooy. Mhm. day delloo awra góor day dema dem ba day yàq sa ndox sperme. ok day dema dem ba. Euh, mën na sax jural nit ki infection ci góor. Hmm, d'accord bu dee ci jigéen tam mën na dem ba wàññi sens sensibilité am nga xam dootul yëg góor. Hmm. boo àndee moom tam kanamam day day day wow dootul yëg bànneexu sëy hmm. yooyu yëpp daf koy def. fi ne ñu bëree bëri ñu am boo leen laajee rek dañ naan la bi ma nekk xale ma tàmmoon di masturbé wu hmm. yàgg bi ma ko yàgga def nag moo tax léegi mu def ma nii mu def la noonu hmm. euh, tey ñaari cas yi ko waxee ni euh, ci boppam dafay ñàkk kàttan buñ ko waxee wala sax ak hmm. euh, jigéen moo xam góor tey cas boobu tamit ci cabinet bi ndax éléments yi ni ñu fi ñëwee maanaam patient yi ku ci ñëwee tamit ak ku ci nekk nam la dikkee ndax loolu dina yomb liggéent yi réglé waaw xam nga faj moom bu la ci yàlla ubbee lu gën a bëri ñi lay dikkal ñëpp day fekk am nga seen solution. d'accord. lu gën a bëri. ñi lay ñëpp day fekk am seen solution. fii yàlla def na fi ñi fi ñëw ñëpp euh, di faju. dañ fekk seen njariñ. Euh, infection. muy infection muy masturbation. bu dee ki am masturbation moom bu ñu ko joxee cuuraay. tamit cuuraay bi nga ko doon koy suuru. ak cangat boo xam ne moom lay sangoo. incha allah daf koy bàyyi. alhamdulilah macha allah waaw daf koy bàyyi. tabaarkàlla euh, sëñ am nag benn boo xam ne dama koy faral di dégg euh, daanaka sax xam naa ni gaañ a ngi xaar numéro bi ak contact bi mais nañ ma may rek ma daanal ci bi muy hernie. Euh, jàngul boobu ñuy wax ni hernie. ñu bëri mm. dañ koy waxte ñu bari xamuñu ko. Mm. amaana ñi ñu ko xamul lan mooy hernie. maanaam nan la mën a def phase bu yóbbu ko doomu aadama bi. Mm-hmm. waaw hernie moom en général sax dafa héréditaire am na famille yoo xam ne dafa leen yàpp. mam hernie. waaw lan ci ñu ko xamul. waaw ñu ko xamul bu dee hernie bi ñuy wax mooy bi nekk si napp góor. d'accord moom bu dee door a commencé nit ki day mel ni comme genre euh, bul wala ngelaw boo xam ne day baagante ci biiru nit ki. Hmm. d'accord parfois mu yéeg jëm ci biir parfois mu wàcc jëm ci naq bi. Mm-hmm. ndax hernie. Mm-hmm. Euh, fissure la boo xam ne. day am. loo xam ne day jóge fi mu nekk. Mhm. dem beneen place boo xam ne du place waaw di déplacé wu. waaw mhm. léegi day am ñaari ñaari corps yu duggante yoo xam ne wala ñoo duggante. Mhm, d'accord. léegi nag su fekkee nit ki da am da ngay gis dafay gën di yokk. en général sooy def lu liggéeyu diis yi da koy gën a yokk sooy sëy da gën a yokk. day na waar. soo sonnee sax mu gën a mu gën a mu gën a yokk. léegi nag day nekk nag si naq nit nekk lu mel ni bul waaye nag day gën di yokk mhm. bu ko muy gën di yokk bu yàggee day wàcc bu ci euh, xuuram yi mhm. bu ko defee day mel ni kum xuuxaan mais du xuuxaan mhm. day mel ni kum xuuxaan mais du xuuxaan irni la su ko nit ki bësee mu dem su bàyyee mu wàccaat mu ñëwaat waaw mu ñëwaat fekk noonu lay def d'accord di ko def di ko def di ko def da yàgg foo xam ne nag opération doo nga mu ci mën daal mooy solution bi comprendre nga d'accord ndax dana teppeeku noo xam ne mhm. bu tëddee wàcc mhm. booba opération mu ci mën dara mais ki mu dal te àggul ci phase terminale mhm. boobaa ñun bu ñu ko joxee garab ci diir bu gàtt rek dafay daal di wér allah day daal mbokk yi seen uh, jotaay la woon ak uh, Serigne uh, Babacar Diop tabaarkàlla mbokk yi ni ma ko waxee tam di yëngu ci wàllum faj dañ koy wax waaye tamit tabaarkàlla géeju lool ci wàllum lasraar léppam ci alxuraanu karim la ngeen mën ko fekk fii ci ndakaaru boo ñëwee ba ci rond point case bi daana kon yaa ngi noonu rek affiché ci baaru écran bi yéen ñu ko yittewoo rek mën ngeen ko daal di woo ci 77 864 25 89 wala benn numéro